Euh, gis nañ ko tey mais on Faye def na li nga xam ne que moo di une sortie ginnaaw démb moom digganteem ak CREPS exactement yëkkati na fa li nga xam ne que moo di ay cadre fustigeant la démarche du ministre euh, peut-être weex leen si digg penc mi que ni ñoom kenn reconnaître leen et tant d'autres et tant d'autres mais avant d'en revenir si Maïmouna Nour fay ñoom Mamour Ibrahima et compagnie euh, Cheikh Omar cette idée allant dans ce sens daal di war a exactement le code de la presse assainir yéen yi fi doon xew jëm si li nga xam que moo presse beeg tolluwaay wi bañ que vous laa def concrètement. Euh, bon d'abord, il faut que je veux pas personnaliser le débat quoi mais. Mm. Mm. bu ñuy waxtaan ñu waxtaan ci ci aussi. code de la presse vous avez la fi euh, depuis 2016 2017 nous avons ko sàkku ci Macky Sall. doon nañ ko sàkku ci Macky Sall mm. ñu ne nguuru Macky Sall finalement nous nañ ko à l'Assemblée nationale. donc code aussi c'est du droit c'est la loi. et Puis on a fait un constat. Au Sénégal, on a eu combien de groupes de presse On peut les identifier. On ne peut pas les identifier. Hein. Parmi ñi nga ont ne avec interagir presse bi avons eu des ak hmm. journaliste. première chose moi je ne suis pas journaliste je ne me réclame même pas journaliste mais le code de la presse am prévoit. lu code de la presse dafa am ay critères yoo xam ni daf ko hmm. critères dañ ko code de la presse pour être reconnu comme entreprise de presse hmm. il faut un am registre de commerce am l'INEA am ISSSN ça c'est toutes les entreprises ñu war a formaliser ñu secondo pour être conforme hein, au code de la presse il faut nga am un directeur de publication qui détient la carte nationale de presse hmm am expérience minimum de 10 ans nga wara am un rédacteur en chef bo xamantene ne am carte nationale de presse té exercer na lu toll ci juróom-ñaari at nga am l'originalité du contenu lolu moy de manière générale comme télévision yu mag yoy maintenant boudé euh, presse en ligne comme Sénégal 5 dañ il faut nga recruter minimum trois journalistes yo xamné am nañ carte presse nga doga am mais aussi nga y ni am nañ certificat de travail pour inspection du travail valide na ko moy réglé donc quand on demande à tout le monde de se conformer aux règles il faut que tout le monde se conforme aux règles mm. Mm. voilà donc pour moi ce que le ministre de la communication l'État ce qu'il a demandé d'assainir la presse c'est la même presse qui a demandé que nous assainir le milieu Nous avons ñuy toog nous dañuy def presse nous mm. ko waxtaanee nañ ko donc la commission boobu correct mm. commission boobu ñi représenté journalistes Nous avons Nous fa. kon bu dañu bëgg a nañu ci lan les règles nga ni Nous avons ko avons aura pas de problème par contre nous wutuma lu neex ñuy waxtaanee rek Sénégal 5 am na. ñu ngi si. non am ngeen wala amu leen. <laughs> ñu ngi second waaw dem leen wuti. am premier am second tour. waaw dem leen ngeen wuti. parce que mënoo nekk ci dëkk te duñ ko réglementé. parce que li ñu seetlu woon dama ko doon wax fan yële nga yeew gis lu mot cinquante journal journal bi xamoo sax fu mu nekk xamoo ko ko moom. xamoo lu muy bind. am na ñoo xam doo dox ci mbedd ba gis papier journal. Hmm. xanaa da ngay am benn infographe bind lu la neex ñu taf ay à la une. man waxuma ko. CDP. CEDEPS les éditeurs de presse ñoom ñoo toog ñu ne gis nañ fi ay journal yoo xam dañuy jaay seen une un million man waxuma ko voilà nga toog dégg ab journaliste ne. man su ma am loolu ma fayee salaire damay woo ministre bi mu yónnee ma léegi nag su fekkee dañ bëgg a defar nañu waxante dëgg ku mu neex nga takk sa rajo wax lu la neex aussi koo xam ne tailleur la woon ci ay fen ñu xëtti la nga ne chroniqueur nga ba lu la neex wax koo xamante ni animateur nga woon Dunia di maye dédicace ñu xëy ñu ne la yow chroniqueur nga kaa nga wax si économie kaa nga wax ci droit hmm. jàmbaar qu'est-ce que nous voulons est-ce qu'on veut avoir un laisser-aller wala dañu bëgg réew moo xam dañ koy teg ci yoon donc pour man euh, loolu moom euh, amul amul leneen il faut que les gens respectent li nga xam ne moom mooy la législation maintenant nag ñi nga xam ne dañuy yuuxu dañuy xataraayu rek parce que robinet yi ñoo tëj c'est très simple régularisez-vous point barre parce que nit du dawal autorité te amoo permis munoo ubbi école te au préalable amulo reconnaissance état loolu la rek. Hmm. alors mais ni Omar ni euh, ni peut-être euh, ki nga xam ne le ministre de si waroon consulter euh, consulter exactement les acteurs de la presse la muy def quoi que ce soit gis nañ ko ñu le euh, CDEPS kenn dugalu euh, le patronat aussi euh, de len rester en rade tout le temps di jëm wax ak li nga xamné que di les jeunes reporters jamais aussi de leen ba mu leen dalalee métti na quelques patronats étant d'autres étant d'autres naka ko daal di le fait que ñoom ñu patronat bi da xaw beddi mais autour de CDEPS bon de toute façon pour moi le ministre de la communication comme c'est le ministre de la communication il doit huiler sa communication avec les gens sont dans son secteur ministre de secteur a cadre d'échange et de partage mm. mm, mm. je suis parfaitement en phase sur cette question par contre moi je ne gère pas les patrons de presse demal nga xol milieu presse ci journalistes techniciens nga ñoo ci am contrat de travail groupe de presse yu mag yi ngay dégg yëpp yan condition de travail li ñuy exploité ñu fay liggéey man liggéey naa ci groupe de presse bu mag sept ans awma attestation de travail pendant sept ko contrat dama koy dégg rek mosuma koo gis waaw bi ma paree ne banaa sax amul benn kayit reçu sax mënuñu ma ko jox loolu ci lu mu bokk par exemple est-ce que vous avez compris donc si waxtaan le patron de presse il est riche le patron de presse a am moi am ay am centre d'intérêt parfois ça va arrangé wul mon frigo la bu la frigo congélateur presse aussi am ay may ndur ko mu wax présidence doon fayal un salaire qu'est-ce que ça veut dire ça bi nga convention de presse yi ñan ak ñan lañ ko jox dañ pour saaga adversaire au régime wala wax ñooñu lañ ko doon jox ay TikTok lañ ko jox ñi comme hmm. c'est ça la vérité aussi ah pour euh, l'État gagnerait à se concerter parce que l'État a un intérêt pour fermer ses entreprises parce que on est au Sénégal 5 y' a plus de 20 personnes qui vivent liggéey 20 personnes qui xam ne ay ndaw lañ jàng nañ ci ay école presse qui ñooñu se retrouver au chômage donc l'État n'a pas intérêt à cela mais par contre nous acceptons de régulariser une situation hein nous acceptons ñu le milieu de la presse pour moi c'est une vérité et c'est une réalité voilà voilà alors euh, yàlla dëgg la bëgg de. Euh, euh, mi ngi exactement jàngat wi. ñu nag ñu doon dóor rek ak ñu doon kii yëpp. alors alors mais Cheikh Omar dafa am si jaaxal li ñu itam Aliou di ko déclaré si les.